Elle fait partie du groupe Futur Média. Elle a changé le style de faire de la télévision. Dans Waref, elle enchante toutes les grandes dames de son vrai nom, Degen Chimère. Qu'on applaudit Adia Degen Chimère, Babou, Salon Degen Chimère, pour nous enchanter ce soir sur le plateau de Mode Korité. Image. xale bu jigéen bu ci bëgg defar ba mu baax ñëwal fii ci complexe Déguène Chimère file nag dinañ la defal ay coiffure de cérémonie bu bëggee chignon bas doxantu fi chignon haut waxi noppi ay tresses yu amul fenn daal duma su fen mi mën naa bañ a sore ku nekk sa bopp dina la misaal akiru sama jekk ci korité bi def ba mu baax dawal fii nga ñëw ci complexe de Guén Chimère nekk ci point E téléphone 30 118 20 52 wala 70 970 18 49 complexe de Guén Chimère fii rekk la fii dong la te du feneen. complexe d'Éguen-Chimère. Alors nous allons voir le représentant le repré ou la représentante du complexe d'Éguen-Chimère. On les applaudit s'il vous plaît. waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ce bleu baax na ce bleu turquoise na ce bleu ma nga place am te jigéen day dox ndànk bu ñëwee nga wax ak man ndànk ma bëggoon ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax. Bienvenue sur le plateau de Mode Korité. Bonsoir. prenez le micro et prenez place, faites comme chez vous. J'espère tout simplement que vous aurez l'aisance de Adja Degen Chimère. ana Adja Degen Chimère. Boubacar na nga def. sant yàlla. Ndiaye dégg ngeen mi ngi États-Unis dafa dem États-Unis dem na wareef tey. dem fa dem mu defi wareef États-Unis waaw dem na dëgg la yow noo tudd. man maay yaay Fatou. yaay Fatou. waaw yow loo bokk ak moom. dégg doomam la yow yaay doomam. maay doomam. doomu dégg chimère <laughs> moo tax ngay wax ndànk nii. ah waa gis nga de ndànk. gis nga ci leen doomu dégg chimère bu baax a baax a baax a baax. <laughs> yow yaa nekk ci salon ba. waa Boubacar man maa nekk ci salon bi. waaw euh, complexe bi daanaka bu mu ubbee yàggul waaye dafa judd rek nekk ca pàccoli xëy rek nekk ca nit ñi daal di koy taamu bëggal ko seen bopp pour yéen lan moo waral loolu. waa gis nga bi ñu ubbee ak léegi wax dëgg yàlla yàggul yàggul dara waaye nag ñëpp sopp nañ ko bëgg nañ ko seen baax rek. bëgg nañ lu baax bëgg kuy def lu baax ñoom tam ñu ñëw. Hmm. loolu kese la. Euh, gis nañu ngeen def ay chignon yu haut gis ngeen def ay petites têtes et tout ça da ngeen amoon expérience déjà xale yi ngeen di liggéeyal dañu amoon expérience déjà avant ngeen di tàmbali liggéey ak ñoom. waaw Boubacar balaa may yegg ci ñi ñuy liggéeyal sax dañuy njëkk wax ci ñun dañu juddu bëgg mode bëgg lu rafet am don ak talan ñu ñëw ànd ak ñoo xam tam dañu mën seen liggéey am expérience ñu ànd ànd bu rafet di def lu baax. Mhm. loolu Euh, c'est vrai euh, expérience baax na. Mhm. Euh, mën a liggéey baax na mais Sénégal du ko ubbi rek gaa yi ñëw ci yow mais yéen da ngeen ubbi rek gaa yi ñëw ci yéen xëy na nee nga seen baax la mais am na aussi leneen loo xam ni moom. am na lu tax tur bi. Adja Degen Chimère la ñu wax borom sañse borom lu rafet borom def ba mu baax moom lañ ko tuddee mhm. moo waral Sénégal yëpp ñëw ñu leen ci sant di leen gërëm wax dëgg yàlla. Mhm. ñu ngi def ñu ngi ñëw daal macha allah. mais dañoo gis ni du ay coiffure kese ngeen di def. dañuy gis que ni da ngeen di def aussi ay accessoires. waaw Boubacar dañuy def coiffure dañuy def accessoire ci loolu la ñu tàmbalee affaire bi nag dina law. Hmm. dinañ dugg ci lu ne macha allah ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu yegg ci li ñu bëgg a yegg. Hmm. mais tàmbale daal ñu ngi ci coiffure accessoire. Hmm. Euh, Tata Déguène Chimère bés bu jot. Mhm. balaa muy ñëw fi nga xam ni moom moo di ci TFM day jaar ngeen coiffé ko defar ko ba mu baax muy soog a ñëw waaw Boubacar bu wàccee nag daal di soog a ñëw salon bi maman Degene day xëy chaque jour daagu ndànk ci salon bi ñu defar ko ba mu baax mu doog a xëy si oh. bu wàccee daal di ñëw àndandoo ak yéen ci liggéey bi bu wàccee ñëw ànd ak liggéey bi moom daanaka damay wax ni daf ñu ubbil pour ñu liggéey ok daf ma ubbi teg ma fa yoonam nekku ci bëgg lu dul ma liggéey bëgg rek ma jëm ci kanam sama yaay joo xam ne la mënuma toog te duma wax ci moom lu baax mhm. ndax ku ma xam-xam ko ci man mhm. daf ma yar bi may xale ba tey tete ma te di ma jàngal liggéey mhm. lii nag may door mu teg ma ci tànku liggéey bëgg ma am ci ndam ma leen di ñaanal ngeen ña ma leen di wax ngeen ñaanal ma ma am ci ndam ndax dama am ndey ju baax ju bëgg ma liggéey lii moo waral liggéey bi ah, waa mais yéen ku la ñawal li yow mbaa jàmm waaw Boubacar lii ku tudd Dija design moo koy def. Dija design. waaw Dija am na jom. am na jom. bële bii mu génn moom bële bi moo duggee bële bi ëppul. day def ba mu baax. bële bi ah mooy turquoise. <laughs> bu bleu roi. Boubacar dañ koy wax bleu de France. bleu de France. waaw ak bleu roi. waaw dëgg la moom la moom la. moom la xàmmee naa ko xàmmee naa ko. <laughs> alors euh, ku leen bëgg jot ñëw seet si leen pour ngeen coiffé ko fan lay fan lay wote. ñun ñu ngi point E rue 1 angle B. ku ñu bëgg joindre da ñuy joindre ci 70 970 18 49 wala 30 118 20 52 wala tam ci 77 641 30 01. 641 30 01. oui ñoo ngi leen di encouragé bu baax. Boubacar merci. di am fierté ci li ngeen di liggéey. ñu lay wax nga ñaanal ñu liggéey dañu lay encouragé bu baax waaw ñaanal ñu bu baax Boubacar. ñaan lañ soxla dañu di ndaw soxla ku ñu tette ak ku ñu ñaanal. ñoo ngi seen wet. waaw d'accord bul tiit bul ragal. tiituñu ragaluñu. bon courage <laughs> merci inchallah et puis on va vous accompagner. voilà euh, toutes nos félicitations. alors euh, bleu bi bleu roi bi. bleu France bi ma bëgg ñu tàccu bleu roi bi bleu France bi baax a baax a baax sa chignon baax na bokk ci suñuy gan tey yaay Fatou salon Déguène Chimère Adja Déguène Chimère Babou merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Mode Korité à très vite ça merci beaucoup